برحمتك يا أرحم الراحمين ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki téléspectateur LCS la chaîne sénégalaise euh, dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission bu mag bile muy yeete tabaarakallahu ñun nuyu leen ziyaara leen balu leen xaq bu baax bal leen xaq ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal nañu dollee sa mbërtal ci géeju yërmandeem yi dollee ñoo yiir mbalaanu suturaam yi bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee rek pour gagner temps euh, macha allah dañuy dem rek ci bind tay bi leçon bi xam ngeen ne tabarakallahu euh, démb defuñu émission bi ngir yàlla ak coono bi ñu jógee ci wàllu conférence anniversaire bi tabarakallah moo tax démb gisu leen ñu tey dellu siwaat nañu lettres yi ngeen seen incha allah moom la ñuy fas yéene nafar ak yéen Euh, su ko defee kii boo ko defee benn tomb ci kaw dafay nekk lettre fa ci ñi nga xam ne seen fa day nekk benn tomb ci kaw seen xaaf nekk ñaari tomb ci kaw ñoom nii lañuy ñuy bindee fa maanaam tombam ci kaw lay nekk dafa am ñoo xam ne seen fa dañ koy def mu nekk tomb bi ci suuf loolu am na ci téere yi boo demee ci warshi yi muy téere alquran yu xonq yi ñoom faa bi dañu jël tomb bi def ko ci suuf su boobaa seen xaaf benn tomb lay am ci kaw waaw pour ñu leeralal la yow mi suivre nga xam ci loolu dina am solo téere alquran yu xonq yi ñoom ngay gis souvent ñu tas leen pour ñi nga xamante ne nii dañuy jàng kaamil di séddoo jukki yi téere yu xonq yooyu am na juz u amma am na juz u tabaraka am na jus u qad samia dégg nga am na jus u mariam su ko defee nag boo ca demee faaba dañ koy def tomb bi ci suuf ñu jël xaaf ba def ko benn tomb ci kaw bokkul nag ak arab par exemple boo demee ci xafsha xafsh ba tey ñoom noonu lañ ko defee faa benn tomb lañ ko def ci kaw xaaf ñu def ko ñaari tomb mooy téere yu weex yi alquran kaamil yu weex yi boo fa demee faa bi benn tomb lay nekk ci kaw xaaf bi ñu def ko ñaari tomb euh, dégg nga comme ni arab di bindee waaye yu xonq yooyu nag saay boo fekkee ci téere rek ñu jël tomb def ci suuf su boobaa faa la fa boo fa gisee benn tomb ci kaw su boobaa xaaf la fa waaw kon léegi ñu ngi ci lettre fa ñu def ko comme ni ko arab yëg téere yu bari di bindee comme dañuy ñëw ci yooyu ci kanam su ko defee boo maasee fatxa nga ni fa dégg nga de boo maasee kasra nga ni fi nga maas damma ne fu maas sukun ne af gis nga ko fa fi fu af fa fi fu af fa fi fu af léegi lettre bi rekk moo tudd lettre fa cosaan la moo nekkoon fa un waaw fa un ñu gàttalal la bëgg laa noppal nga ni faa bu amulee benn maas waa bi mu nekkee vidde nii maasuma ko su boobaa lettre bi mooy lettre faa bi ma ko maasee fatxa mu nekk fa ñu maas ko kasra mu nekk fi ñu maas ko damma mu nekk fu ñu maas ko sukkuun mu nekk af waaw su ko defee kon lettre xaaf mooy nekk nii day am moom ñaari tomb ci kaw lettre xaaf bi ñaari tomb la ci kaw ñu maas ko fatxa nga ni léegi bi mu amagulee maas comme nii xaaf lay tudd xaafun moom nga waroon wax mooy cosaan li xaafun mais léegi nii rek lettre xaaf la sans mu am masque voilà léegi boo commencé ci suuf kasra bi da ngay wax xi boo commencé damma bi da ngay wax xu soo commencé sukun da ngay wax aq gis nga ko lettre bi kese sans mas mooy xaaf xaaf xaafun moo doon cosaan ñu daggal la noppal la xaaf maasal nañ la fatxa nga ne xa xa moom danga koy sentir ci boli gi ci wannaasukaay bi xa ñu maas kasra nga ni xi ñu maas damma muy maska lonk bi nga ni xu bu ñu maasee sukk xalamun par exemple bi ñuy bindee big xalamun mooy firi big xaaf bii lañ koy bindee dégg nga xalamun xirdun mooy firi golo xi mu ngoog mooy lettre bii jiitu waaw par exemple bii mën nga ni qul huwa wala nga ni qul auzu bi rabbil falaq lettre bi mooy jiitu mooy qu kii mooy aq waaw xa xi qu aq fa fi fu af qa qi qu aq fa fi fu af qa qi qu aq dégg nga bii ñu jëm mooy lettre kaaf salaamualeykum. waaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. allo. waaw kooku. Bintu Kan. waaw waaw waaw waaw kan kan kan. na ngeen def. merci. naka waa parcelle. merci. alhamdulilah kan kan. yow day tabarakallah ay ci bismillah jàngalal téléspectateurs yi lay sédane yépp ak téléspectatrices yi قي قي lettre bi lettre bi kese sans masse nuñ koy tuddee. kaa. amagul masse. kaafun. Um, waaw kumba kaaf. kaafun wala kaaf léegi ñu maas ko fatxa li nga wax lan. ka. ka ñu maas ko kasra ci suuf. ki. ñu maas ko lonk damma nga wax. ñu masko sukun ron nga wax ak ak desane lettre bi amagul mas moy ban lettre Lamun. ah Lamun. lamun barakallahu fiki laamun wala nga ni lam lettre lam waaw kumba way buñ masé fatha nga wax lan la la ñu mas kasra nga wax lan li ñu maas damma nga wax lan lu ñu maas sukuun nga wax al al barakallahu fiik barakallah euh, soxna bintu ñu kontaan bu baax a baax a baax a baax waaw sëñ Diouf waaw kay Mouhamadou Fadal salaamaaleykum aleykum maa ngi bëgg ñëw dimanche waaye mujj ma am numéro bi wallaay wallaay ndeysaan wallaay waaw léegi baal ma ko rek nga jot ma ko. Euh, numéro bi. waaw démb jëm naa dugg waaye mujj ma woon dugg démb ci émission bi. ah numéro serveur bi wala téléphone bi. sa numéro yow sa numéro. ah d' accord d' accord 77. waaw 77. 77. 306. waaw. 306 38. waaw. 15. jërëjëf dinaa la woo keroog dëgg la ci. waaye mujj bi. dëgg la kan dëgg la kan. keroog enregistré wu ma ko jërëjëf Diouf. jokkoo incha allah. fa tabarakallahu ñu sant ko bu baax euh, gërëm ko euh, moom Cheikh Mouhamadul Fadal kan macha allah di encouragé doom bi bu baax ci pour mu.

Alxaaji Malick Diop Dakar ak Mamadou Ngom Jacques Mbaw ak Abdoul Aziz Thiombane ak soxna Khady Diallo soxna Aminata Seck fële ca Bargny salaamualeykum. waaleykum waa kay ku baax kooku kan la. ah. bismillah. wallaay dëgg la ñu ngi lay fay bu baax ndeysaan. wallaay ndeysaan. Mm-hmm. dëgg la xam naa dëgg-dëgg bi moo xaw euh, am kii tuuti. waaw. waaw mais léegi maa ngi dégg mu ngi leer bu baax bisimilah. tabaarakallah ñu ngi ndeysaan kontaan bu baax ci soxna soosu xam naa dëg-dëg bi moo xaw a des tuutile 88 628 17 27 88 628 17 27 incha allah ñu jégalu ci bu baax a baax baax baax euh, gërëm bu baax suñu doom jooju soxna Bintu Kan di doomu Cheikh Mahamadul Fadal Kan foofu ca parcelle fa tabaarakallah euh, Cheikh Mouhamad daañu jokkoo incha allah rabbunallah wallaay eh, li ñu am yéene ci sunu doom boobu yal nañ ko yàlla mottalil ci kattan yàlla ak mbaaxam 88 628 17 27 88 628 17 27 kon kii mooy lettre fa kii mooy lettre xaaf kii mooy lettre kaaf kii mooy lettre laam kii laam la kii kaaf la kii xaaf la kii faa la buñ commencé fatxa lay nekk fa buñ commencé kasra lay nekk fi buñ commencé damma lay nekk fu buñ ko commencé sukuun lay nekk af kii lettre xaaf buñ ko commencé fatxa day nekk xa xa da koy sentir ci boli gi xa ñu mas ko kasra nga ni xi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Diouf. waaw sang. man la Fallou euh, xarafu fabi lañ aj ci kaw kenn gisu ko. ah bi ci kaw dafa aju. xarafu fabi waaw kenn gisu ko. waaw kay ñu ñaan suñu techniciens yi ñu yëkkati kii bi tuuti pour lettre yëpp leer léeg-léeg da lañ ci bàyyi xel dañu ci am solo lool. tabaarakallah waaw seet leen bu baax rek ba mu leer bu baax ñoom ñu gis ko bu baax mu ëpp solo. man wax naa leen sax man ma feeñ sax amul benn sens na écriture bi feeñ bu baax rek su ko defee tabaarakallaahu ñu sant mbokk moomu bu baax euh, ci contribution boobu fa tabaarakallah suñu techniciens yi ñu ngi xool pour mu leer naññ rek na lettre yépp génn leer naññ ci bëtu téléspectateurs yeeg téléspectatrices yi loolu mooy li ñu gën a ëppal solo ñun euh, tabaarakallaahu su ko defee euh, gis nga fa moom mooy bu buñ maasee fatha buñ maasee ci suuf kasra nga ni fi bu ñu maasee damma nga ni fu bu ñu maasee sukkuun nga ni af waaw voilà tabarakallahu ñu sant suñu technicien yi bu baax kon mi ngoogu leer na nañ macha allahu taala waaw man awma ci solo wallaay ndeysaan euh, soppe bu baax woona ma fii ba Italie ne ma gisul émission bu ëpp solo ci télé bi bii émission ma ne ko waaw góor yow euh, gàcce ngàllaama boole naa la ci fans club bi <laughs> loolu loolu li gars yi wax naan dana ma neex loolu moom dana ma neex lool fa tabarakallah parce que euh, liñ leen indil la yéen a ko moom macha allah ngeen ci mën a góor góorgóorlu bu ngeen ci toppee rek yàlla baax na même bu koor gi jeexee day continuer incha allah tous les jours dégg nga kon fa fii fu af muy lettre fa lettre xaaf xa xi xu aq xa xi xu aq lettre kaaf ñu mas fatxa ka ki ku ak ki ku ak lettre laam wala nga ni laamun wala nga ni laam buñ maasee fatxa la kasra li damma lu sukun àll fatxa lettre laam la kasra lettre laam li damma lettre laam lu sukun lettre laam àll lettre fa fatxa fa آه، كسرة في ضمة فو سكون أف لتر قاف فتحة قا كسرة قي ضمة قو سكون أق لتر كاف فتحة ك كسرة كي ضمة كو sukun ak lettre laam fatxa la damay bëgg ngeen jàppwaale tuuru masque bi daf ciy am solo xam masque bi bu nekkee ci kaw nu mu tudd mooy fatxa nga ni la lettre bi ci suuf maanaam masque bi ci suuf mooy kasra ci lettre laam li masque lonk bi moo tudd damma ci lettre lam lu mascaron bi mo tudd soukoun ci kaw lettre bi donc fa fi fu af fa fi fu af qa qi qu àq xa xi xu àq ka ki ku ak ka ki ku ak la li lu àll la li lu àll fa fi fu af xa xi qu aq ka ki ku ak la li lu àll pa fi fu af xa qi qu aq ka ki ku ak la li lu àll tabaarakallaahu 88 628 17 27 bu fekkee am na ku mokkal bëgg a tari 88 628 17 27 incha allah mën ngaa dugg tari seet ba xam noonu la wala déet incha allahu taala euh, kamtalaayal li ñu dese ci ay simili incha allah فا في فو اف قا قي قو اق ك كي كو اك لا لي لو ال السلام عليكم الو tabaarakallah mbokk moom rëcc na 88 628 17 27 88 628 17 27 fa tabaarakallahu euh, mën ngeen jaar foofu seet testé ba xam yëf yi dugg na wala déet incha allah ñu ci jaajëfal bu baax soppe yi nga xam ne yépp ñoo ngi koy topp fa tabaarakallahu di ñu ci encouragé euh, yal na yàlla barkeel lépp lu ci waay xamee rek yal na ko yàlla barkeel def ko mu nekk yiw boole ñu ko ñun ñëpp boole ci kër gi tabarakallahu LCS la chaîne sénégalaise yàlla gën koo jëmee ca kanam bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñaanal DG bu baax fa tabarakallahu ak personnel bi nga xam ne yëpp ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi fa tabarakallahu salaamualeykum salaamualeykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. wala Ndeye Fatou. Ndeye kan man ay Ndeye Fatou Kane. Ndeye Fatou bismillah. ak laa lu lu àll. barakallahu Fatima <laughs> Fatima soxna Fatima kan tabarakallah euh, kontaanat nañu gis nga xale yi macha allahu taala ñàkkul bu fekkee sax ñu ngi ci daara di jàng lii dana nekk bërëbu nafarukaay pour ñoom tabarakallahu ñu sant leen bu baax gërëm leen Euh, ñu ngi ñuy signaler ni li ñu cërale woon ci waxtu jeex na fa tabarakallah sant suñu cameraman yi Pape Sarr Samba sant waa régie Moussa Koulibaly soppee Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci tabarakallahu <laughs> waa fites yi na lool ndeysaan <laughs> ki nekkoon ci tableau bi seen mbokku daara Oustaz Mor Diouf dig daje insha allah suba ak jàmm ci waxtu wi le wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين